ciblé na de deuxième com deuxième combat bi. kii su ma ko jàppee du doy. pare ngeen parce que Serigne Bamba. amul xàccu dóor nana ma la nana la. ndaw ndaw ndaw ndaw yëpp fi may dem yëpp booy bi dem na fa kër Serigne si. kii sama doom day la yàqu ma deram waa Demba. Demba daa mel ni fi mu nekk nii daal lépp nice. dëgg yàlla xol seddati na xam nga li ma la wax xam nga bu lëkk la sax na ko gërëme coy sama raq yi yëpp ñoom papis ak ñeneen ak ñeneen soo limee da juum yendaluñu fanaanuñu xam nga li li ci war yëpp def nañ ko xol sedd na ñu ngi leen di sant di leen gërëm Modou Lo nag nii la mën a mel xam lu tax ndax ñëpp la boole yemale ci kër gi ku ñëw tey ak ku ñëw démb ak ku ñëw barki démb mënoo koo xàmmee ndax baaxam ak yaatuwaayam ak léppam moytuwul kenn ibil na ñëpp buntoom xam nga dañ koy ñaanal rek xam nga li yàlla defal ko jàmm ak salaam waaw ndam nag ndam la du tuut xam nga waaw kon daal teem jose rek wa kii mooy Papis man tey dama xamul Papis quoi Papis tey lan moo lan moo soppi Papis tey. lan moo a xàmme wu ma tey. parce que Papis bi ma daan gis tey dama gis Papis soppeeku. Mour buy dem làmb ja day bàyyi Mour kër ga xarañ loo mooy dem ci làmb ji <laughs> Papis boobu moo noonu la demee rek. ci côté xarañ boobu dafa mel ni kon dal di yéen ñëpp ci ciy àndaale di ko doxee di ko waxe noon la demee rek mooy ñun ñun ñooy moom kenn mënul dem bàyyi sa ngeen bëri ak la de Guiers numéro 2 daan ko. ci anam bu ñu neexul lañ ko daanee buñ sañoon dañuy war ci kaw mais comme jël initiative yi jël moom mën naa ne Lac de Guiers man nee naa ñi gars yi gisuñu ko man mu nekkoon ci géew beeg moom maa ko gis. noo ko gisee yow. non mais ni mu toll bu mu tolloon noonu kon kuwam sax du dal Modou wallaahi. ku ko bañul du ma maa ngi lay bëgg di la ziar. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax waa Lutte TV. incha allah. Modou. Modou tey da nga ñëwaat stade Léopold Senghor muy premier combat boo fa bëree nga ñëw ak beneen façon ñëwin andi xeex andi bëree andi doole Modou. lu waral loolu ak Modou lan lay liggéey ba yu mel noonu di am si ay kombaam. ah pour naa ñëw yëpp benn la de yi ma daan ñëw ak tey benn la. waaw gisoo loolu yow. ah non tey daa ah, daan liggéey lañ liggéey rek xam nga ñëw indi ànd suñu mbokk moom suñu adversaire ñëw ànd ak ay mbokkam yàlla mi may may ñu ndam. xam nga ñu koy sant yàlla bu baax a baax di ko encouragé moom xam nga ne ko làmb noonu la ko sport moom xam am na victoire am défaite am match nul. damay damay dégg yi di wax naan Modou poids lourd yee ko ëpp doole te Modou saa yu bëreeg poids lourd yi andi leen ay jafe-jafe loolu lan lañ ci Modou mën a leeral. waaw maa ngi koy wax sànq ci béga ci ci ci plateau béga yi xam nga dañuy jaawale force ak masse te bokkul nit mën na la ëpp ñaar te du la doole mais ñoom Sénégal fii boo amee biceps si rëy wala kii si ñu ne am na doole te fekk loolu doole doole day nekk ci nit. xam loolu la moo tax nit ñi di trompé wu chaque jour quoi. te ker dama ko laaj avant may ñëw foofu sax bés dama ko laaj ker bi ma ko fekkee ma fi ñu ma ne ko Modou dafa mën a dañ na daa mën a bëre mu ne man naa bàyyi di ko wax Modou daa mën a bëre ndax koo bëril mënoo ko daan kon bu ko kenn wax mën a bëreem moom dafa jàpp na yow mënuloo bëre ko loolu la jàppoon avant combat bi. waaw xam nga gis-gisam la wax rek. te c'est normal comme son adversaire la. du wax mais nga jàppanteeg moom di reetaan Modou gars yi ministre supporter boobu est-ce que tiituñu. non oh, pourtant yéen a gis rek sax man bàyyiwuma ci sax xel xam nga man maa ngi fa maa ngi nekk entraînement quoi contact. Franck kay loolu la yow doo jàppante da nga wax lu mel ne da ngeen mel ni kuy entraîné. waaw parce que affaire bi boo ko yénoo day diis jarul yéen et puis nga waxoon ne bu ko bu bëggee sax nga may ko ndigg ak wet a ginnaaw mu mel ni dem nga bàyyi ko mu jàpp sa ñaari ngembam ci sa ay loxo te deful dara. Mhm. waaw comme li may wax chaque fois rek bëre ñaar ñoo koy def xam moom tey initiative yi ma jël su ko jëloon xëy na sax lii ndam la mais xëy na dina gën a leer. xam nga mais ba tey ndam ndam la rek sante yàlla la. et puis sonal war def def naa ko. et puis Modou sonal nga luur yi nag saa yoo bëree ñoom di leen rosa comme ni ko gars yi waxee quoi loolu lan la tamit ku yi leen di dugal ba ñuy dem si ardo <laughs> bàyyi tooj bàyyi tooj non wax ah. bëri dóor lañ wax am na bëri am na dóor et man Modou bi may gis nii Modou dafa sedd ak Modou bu nekk si biir làmb ji ça fait deux de. ah man làmb benn affaire la mbubu la rek bu ñuy sol bu duggee ci làmb ja sol ko buñ fa génnee summi ko xam nga dafa doy waar boo duggee làmb ja ñi nga ànd na sax des fois mën la bañ a xàmmee parce que da ngay soppeeku ci ñoom mais tamit comme ni may wax sport la xam nga foofu am na loo fa yëg ak concentration bi ngay indi c'est normal quoi. parce que lool la ma maire bi wax léegi bi ñu jógee kër ga ne Modou du siggi sax xool nit loolu nga confirmé fii daal. soo ñu mun bu ndaw nii rek. xam naa li ma dugg ci làmb ji sax moo tax mais wax dëgg daal moo xool nit mais léegi tane na maa ngi tooñ <laughs> ak yooyu tool non non non saa jaaxaan mais non xam nañ saa sax si ngoon maa ngi koy taalal micro si stade bi boobu bëreegoo mais dama gis nga fas kanam gi ñàngal waaw hmm? ah, mais concentration rek xam nga concentration àndu la xam nga ay nekk fii xam nga dugg ci waaw waaw xam nga rek ku nekk ak ni ngay file sa sa concentration man su may concentré wu xam nga faaw ma focus ci sama bopp daal hmm, loolu moo taxoon mais tamit ñu gis tamit gars yi wër la xam avant combat bi si open press ñoom Papa Sow Yékini Junior gars yëpp ànd ak yow mel tamit jàpp nañu si combat bu baax a baax. waaw parce que le grand milieu yëpp benn la xam nga yàlla làmb mënatuñu boole boog xam nga làmb mënatuñu boole instant yii dañuy jàppalante taxawu nañ ma comme ni ñuy taxawoo ñu bokkul écrit xam nga. taxaw nañ ma ñoom ñoo ma gënoon bëgg combat bi billahi wallahi heure bu ne lañ ma yee fajar heure bu ne mbër jugal mbër jugal xam nga ñoom franc ñoom góora ñoom garga de xam nga ñoom ba safa gaa yëpp aw ma seen fay di ñaan yàlla mi am fare xam nga papa ak combat bi mu jëm yàlla na ko ci yàlla may ndam junior amaat benn combat am ndam booy ku ci am combat yàlla na la yàlla may ndam incha allah àdduna mu sol xam nga ñun ñoo bokk parcelle lamb du ñu boolewaat xam nga saison bi moom saison ren bi dinaa la laaj combat yi bëri taxaw na moom sa bés dèjà jeex na gañe nga mais damay laaj Modou ban combat tamit fi mu nekk nii la gis ne saison bi war na mën a neex lool lool wala boog combat Modou ah waaw combat yi fi taxaw yëpp ay combat yu neex la di. Ah. waaye combat yi ñu fi boole yëpp yi war a am incha allah combat ah combat yu neex la war a doon yu neex incha allah waaye. am na benn combat boo xam ne nii taxaw na muy diggante. Sa Thiès ak Boy Niang ñaari bërekat lañu la ñuy wax mais am nañu ne sa Boy Niang moo dàq bëre ñii ne Sa Thiès moo dàq bëre yow Modou ban gis-gis la am si loolu. waaw ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañ ah ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañ xam nga to seen combat ñoom ñaar xam naa ku ci ne bëggoon nga woo trop ba mu ba ba ba mu taxaw ah combat bu neex lay doon de combat bu neex lay doon ñoom ñaar yëpp mën nañu ah parce que preuve moo indi tey xam ñu waaw waaw waaw. am na ñuy wax nag fi mu nekk nii ne roi des arènes bi daal moom la Modou soxla da koo bëgg a récupérer teg ko si loxoom loolu loo ciy wax. Yaawu Jaal sax boo ko dékkoon micro tey danaa la roi des arènes laa bëgg a doon. man dékkuma Yaawu Jaal Modou xarañ loo laa dékk micro bi daan la dageer tey. nit lu mu nekk di liggéey bu sañoon dem ji o au sommet am ba tax na kuy dugg ci làmb rek kay sa objectif nekk roi des la. mais roi bi daa am fu mu de. tournoi bi am na fu mu. nañoo moom xam nga mu échec yàlla mën nañu yàlla daal mu ngi fii pour ñëpp yo léegi tey looy wax sa supporters yi fu ne ci àddina bi. supporters aw ma seen fay. ku lim da ngay juum mais ñiy béggee Modou Lo aw ma seen fay su may génn kër ga ak su may ñëw billaay sama yaram day daw mënuma gaaw a jooy rek mais sinon dinaa jooy parce que xam nga mooy loolu daal dafa neex ci xool dafa neex. parce que tamit man dama gis tey xool tribune bi stade bi vraiment stade bi presque li ci ñëwoon lépp di sëpp bu dee cent la quatre vingt pour quatre yi Modou moo ko fa indi maanaam loolu daw na yaram daal. waaw loolu yàlla moo koy def sax combat Modou tamit noonu lay demee mooy maye isam la yàlla xam moo dogal nit ñi sopp moo bëgg moom ba lu mën ne ñu nekk ca isam la loolu nag sant yàlla comme yàlla moom mooy maye xam sant yàlla quoi. ñun nag foraat nañ si wewu foraat nañ si wewu béy ni Modou jël na avance avance avant muy bëree combat bi que loolu mën na ko confirmer wala déet. oui avance bi ah xanaa ko jox man. ah dama de. da nga koo dégg Fata wey na ko de leen bàyyi dégg naa foog naa ak am dama am gerte Fata wey ko de le président. waaw ah, gis sa gars yi tamit ma gis tamit coono bi ñu ci daj ay ñoom Papis Demba gaayab ñaa xarañ ba ci jamaay kenn sax sama rakk ji jam ana jam jam moom noonu na ma da ngay daan la dëgër. non gëm-gëm la rek xam nga mu ngi ñëw entraînement fii la dëgg fii këram la jamaay kenn isam la muy fan club yëpp waa génération xarañ xarañ famille yi xam te max club xam nga waa xarañ moo ñu boole ñëpp taxaw nañ ci isam la mais su may sonn rek ñoom ñoo tax. su may sonn ñoom ñoo tax parce que su ma toogee isam la dinañ gis ñuy daj lu ma doon def dama ko yokku xam ba tax na ñoom ñëpp dama leen laat xam nga lu ñu bëgg ñoom ñoo ko xam yàlla na ko yàlla defal sàmm leen sàmm seen parents yi xam a vraiment aw ma seen fay te boo limee da ngay jum xam nga parce que ñi ci taxaw bari na sama gaawu bopp yi isam la ba Europe par dans le monde daal xam nga ñi ci jàpp bari na di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan jàll yàlla na jàmm yàgg daal. looy wax waa Lutte la sa kër heure du matin di félicité bu a ma raw mën naa de temps wala cinq heures de temps nekk a ñaanal Lutte TV dem ba nekk télé bu mag fii Sénégal xam nga yéen ak yeneen yu bari xaj ci wax dëgg daal yéen a ngi yóbbu làmb dimension boo xam ne sax mën nañ ni yeggu fa woon ñu ci warul jot ñëpp a ci jot daal macha allah si liggéey rafet na yal na leen yàlla defal jàmm incha allah. ok da ngeen di wax si moom gaa yaa ngi nii Franc ngi nii ya Lamine yow kii Franc ngi nii félicitation laa lay wax. merci waay gars Franc waxoon nga ko noonu nga Modou ko laalanteeg moom di nga xam ne am na doole. waaw wax dëgg yàlla moom moom def na lu mu waroon def yëpp ci combat bi xam nga waaw di ñaanal waa parcelle yëpp jàpp yëpp waaw di leen gërëm bu baax di leen sant. yow moom si côté bëre laalay lay laaj dama gis si biir combat bi Lac de Guiers jàpp ñaari ngemba Modou jox ko te Lac mel ni ku xaw a ragal bi loolu lu ko waral. ah waa ji moo pare rek Modou moom xam nga dafa am benn ngëm-ngëm bu ne ci moom quoi. moom boo demee ba pour boo jëlee boo demee jël tànk bi ba teg ko fii sax jàpp ne doo ko daan waaw te mbër dafa dafa loolu dafa baax ci mbër daal ngëm-ngëm. gis nañ tamit mu lak jël tànkam daw ak moom lu sori mais ba tey mënul def ci mënul def dara foofu ci biir bëre bi yooyu tamit yéen dangeen ko doon liggéey si entraînement yi wala. waaw da cee liggéey rek lépp da cee travail rek waaye waaye. nii daal moom macha allah. waaw gis nga de <laughs> waaw bu baax nag moo ci des di ko ñaanal yàlla suñu borom may ko ndam. waaw ak bépp mbëru parcelle buy bëri rek yàlla may la ndam quoi.